affaire bi de ni ko yàlla indee ñun dañoo añ ba pare ay 2 heures 3 heures muy am fuñ seen xale yi toog di bale fuñ toog nii ci rek dënu bi ñëw bi ñuy daw di dugg ci biir daan ak bi tabax yi xar ardoise bi daanu gis nga ko nii mu dikkee nag fu doy waar mu dikkee nag fu doy ndax ku ne xam nga ni heure bii lii ñu toll nii ku sa kër daanu nii ci jaboot am nga sérieux problème mhm. su may xalaat guddi bëccëg ci may njëkk xalaat mooy sama rak sama responsable ñuy Maodo Malick Mbaye mhm. fu may lancé appel ci moom laa koy njëkkee waaw di ko wax ki nga xam ne bii ñooy Brania Alaaji Diallo ñoom ñëpp nañu xam ne daal seen kër a ngi nii gis nañ ko waaw. may lancé appel nag autorité yi maire bi waaw si la suus moom muy defal yàlla fu mu toll na xam ni këru njaboot moo naral yàqu fii ndax fi mu ne tey fu ñu fanaan sax amuñu ko waaw suñu dëkkandoo yi hébergé wul fu ñu fanaan sax amuñu ko te luñ ko defaree it newu fi waaw kon ñuy lancé appel de képp koo xam ne kii daal mën ngaa defal yàlla. te am loo si jàppee bañu ñu saaku ciment bañu ñu benn seng mhm. waaw ci nu mu gën a gaawee ku ñu dimbale daal ñu jël mhm.